ñun sénégalais yi bu nekkee ne gore xeex bii ñii mënuñ cee wéet parce que nga woor ba ngoon jot nga naan ndox mu sedd ñii ñoo tax mu tàng jër nga taal sa clim ñii ñoo tax kon ñun sénégalais yi suñu responsabilité aujourd'hui mooy buñ leen seetaan ci xeex bi ñu ne waxuma sax ay waxu Pape Demba Bitèye waxu Macky Sall lu dul incohérence nekkuñ ci munoo dig sénégalais yi liggéey am cinq 500 sénégalais yoo xam ne ñu ngi nekk ay prestataires depuis des années mënoo leen fexe ba régulariser loolu ay yëfu caaxaan la waaye dama ne ñun waa Sénégal nañu jël suñu ay responsabilité fexe ba accompagner suñu ay papa suñu ay frères suñu ay doom suñu ay sœurs ñekk ci xeex boo xamante ne nii lenn jógu ci lu dul suñu ay services parce que Sénélec service public la ku ci am satisfaction ku ne ku ci toog sa biir kër. taal sa clim mu sedd nga ibbi sa frigidaire naan mu sedd jàppal ne am na ku la koy jox am na ku koy taal te kooku di la ko jox muy travailleurs yi risques yi ñuy jël amuñ indemnité amuñu ay gants chaque jour nga gis ay agents Senelec yëpp ci ay poteaux amuñu gants amuñu masque amuñu casque amuñu dara te mun naa waat ne chaque jour nga gis ci ay accident te jamais accident yi ñu déclaré leen ay nit nañ ci ñàkk seen ay membre seen ay loxo seen ay cër seen ay nangam jamais ñu indemniser leen sénégalais yi sax yëguñu ko di koy nëpp nëppal di ko nëbb nëppal di ko caaxaanee pan en pendant ce ñoom ñu nekk ci kaw ñu ngay jor ay salaires yu dun yore ay oto yu neex suñ ay frère suñu ay mag suñu ay papa nekk fii nag ñoom ci suuf ñoom ñooy nekk ci tali yi nekk ci weñ yi nekk ci fiil lonku yéeg wàcc daw génn dara muñ leen ko jox ay yow mi nekk sénégalais nag nga bëgg toog nag yow ñoom ñi lay jox courant te yow doo leen fa nekkal moo tax kon le 29 bii nii incha allahu rabi le 28 bii nii incha allahu rabi il faut que tous les sénégalais sortent ñun xaar ñu autorisation monsieur le préfet yaa gën a xam li am. yaa gën a xam li am Macky Sall bi mu bëggee organiser dajale euh, def euh, powam ma fële laajul autorisation. keneen ak keneen bi ñu bëggee def seen ay yëfu caaxaan laaj ñu autorisation kon laaj ñu autorisation lii c'est un devoir pour tous les citoyens sénégalais que de sortir aujourd'hui ce 28 parce que boo ko deful yaa ngi seetaan un service public muy nasax boo ko deful yaa ngi def non assistance à des personnes en danger parce que c'est des frères sénégalais c'est des sœurs sénégalais c'est des pères de famille yoo xamante ni ils sont exploités depuis des années état bi parewul pour jël ci ay jumtukaay lenn la Macky Sall xam muy le rapport de force et duñ ci dem duñ ci dem benn ginnaaw per lu ngeen ci bañul bañuñ ko ci du ngeen jiitu ci mbedd mi te sénégalais yi ñu saraan kenn du leen jiitu ci mbedd mi kon na gars yi le 28 incha allahu rabbi ñu génn pour que ñu régulariser tous ces sénégalais là yi nga xam ne ñi ngi nekk Senelec di fa liggéey depuis des années te état du Sénégal di leen saraan di leen toxal faale wuñu leen fonk léegi nag ñuy wax président de la ne ko bëggatuñ jóg ñëpp di ci dugg ñu ne wala léegi abana mërti yéeg naa nga waa Senelec waa Senelec déedéet moo tax on a invité la société civile en l'occurrence Y'en a li tax ñu am ci moom rapproché wu ci moom wóolu ko dañoo gis mu def ay preuve am dañoo apolitique te bëgguñ ku doon ku daan doomi aadama wala ku ko ñàkkal doole mbaa ku ko exploité moo tax ñu am ci ñoom yaakaar ñëw ànd ak ñoom ñu leen di waxal ñoom parce que bala ngaa bala ngaa wax borom réew mi waxal ak ñi ngay àndal ne ñun wax nañ leen ñu bañu ci dara parce que dama gis benn adage léegi bi ngeen def fi benn proverbe il n'y a pas de destin forclos mais de responsabilité désertée lu nag loolu bu ñu dal on ira jusqu'au fond on va se donner en corps et am ce qu'on demande et ce qu'on exige c'est la régularisation la régularisation complète des 499 prestataires de Sénélec voilà ñu ngi leen di gërëm di leen nuyu di leen wax ne yéen jàpp nañ leen duñ leen bàyyi parce que ki nga xam ne boo boo boo xëccee mu ñoddi ngeen andi àndandoo ñoo di bu ngeen daanoo daanu bu ngeen jógee taxaw jóg taxaw kon kooku bala ngaa gërëm kenn gërëm ko ñu leen di sant di wax xale yi ne góorgóorlu leen te ngeen nekk mbooloo la ko dalee Vélingara li ma waxoon keroog ci réunion bi Vélingara ba ba ba Ndioum ba Matam kenn du des ñëpp a ñëw le jour tout le monde viendra ay car la ñu jëw ba Sokone nag ñëpp a ñëw parce que suñu destin xale yi la destin xale yi la na Pape Demba xam ne on se laissera pas faire